ginnaaw bi ñu notifié démb direction générale des élections irrecevabilité liste majoritaire bu Yewwi Askan Wi bu département de Dakar ñëwoon tey dans les vingt quatre heures yi nga xam ni moom la loi bi wax ñëw conseil constitutionnel pour def benn recours en contestation ci rejet boobu nga xam ni le ministre chargé des élections Antoine Diome def na ko muy ministre partisan ministre partisan bi nga xam ni aussi amul maitrise des textes parce que suivrul évolution texte yi ku nekk xam na ni en son temps ci article bu njëkk bu 173 dañ doon wax ni effectivement retrait ak substitution mënul woon am ci benn candidat mais ci code électoral bu bees bi loolu dafa dañ loolu xam naa xamu ko jàngul code électoral bi moo tax mu notifier ñu rejet bi nga xam ni moo am ci liste majoritaire bu département de Dakar ñu ñëw def recours en contestation fii ci conseil constitutionnel indil ko dossier wu ñi nga xam ni déjà ñoom ñoo démissionné retiré wu ci liste bu Dakar mais également indil ko dossier wu ñi nga xam ni ñoom ñoo koy remplacer donc opération bu simple la bi nga xam ni tey code électoral bi def ci mué ci article bu njëkk ba 173 mi ngi ci woon mais tey interdiruñu ko donc warul ñun empêcher ñu def ko depuis àllarba boobu ñu demoon ci direction générale des élections déjà ñu refusé pour recevoir suñuy dossier refusé pour que huissier de justice dugg si altine bi mu mujj également la même chose def naa une heure de temps ci biir direction générale des élections di leen xamal ni xanaa li gën a jekk te normal mooy bu nit indee courrier nga mën réceptionner courrier bi defal ko décharge boo koy tontu nga tontu ko mais ñun duñu jël courrier kooku amul fenn ci Sénégal même yéen bu ma ñëwee ci seen i biir télévision seen biir quotidien et autres ni indil naa leen courrier daa ngeen ko jël après ngeen tontu ma waxuma laat administration état nekkal fi adduna bi yëpp nekkal fi sénégalais yëpp pourquoi nga war indi benn courrier ñu la doo ko jël waxuma la sax ci ay électeurs rek ay coalition mais chaque citoyen bu romb indi un courrier war nañ ko mën a jël tontu la donc pour wane rek déjà ni ñu commencé di salfaañe yoon ci biir réew mi bi ñu defee loolu ñu ñëw kon indi dossier yëpp fii ci conseil constitutionnel tàpp nag ni xanaa pour une fois daanu compétent pour une fois duñu déclarer incompétent sur une chose pour une fois daanu déclare compétent ci li nga xam ni moom la yoon may pour que ñu mën a def substitution yi war ci liste bu Dakar beneen recours bi ñu introduire mooy li nga xam ni dafa ni weng wër àdduna mooy li Benoît Sambou déposé le 4 mai ñëpp gis ni moom moo fotowu ci wetu madame Aminata Touré di wane ni déposé nanu ay parrain fii ci commission de réception des dossiers au lieu de cinquante cinq mille trois cent vingt sept ñu déposé cinquante cinq mille trois cent vingt huit dégg na madame Aminata Touré ni non loolu dépassement mineur la déjà kooku aveu la parce que dans ce qu'elle di dit il y a le mot dépassement la qualification de mineur ou majeur ça incombe ci ki kay wax mais dépassement am na donc elle l'avoue quand elle avoue que dépassement am na mooy génn na ci li loi bi wax parce que loi bi moo encadré ban intervalle la parents yi war nekk yow boo ci génnee ça veut dire def nga lu loi bi waxul comment nga mën defee lu loi bi waxul ba pare bëgg ni da nga am bëgg ni da nga war a am liste ci élection ñuy fàttali ni déjà dépassement moo tax kii di le maire Bamba Fall bi mu nekkee mandataire yu gëm sa bopp fii Dakar bi mu ñëwee dépasse déposé cent candidats dañu ko cinquante cinq la woon pourtant dafa génn bëgg dugaat rek ñu ni ko bay wéy na mbuus mënoo ko changé fële na le ca Kédougou Girassi dañ ni ko woon seize suppléants nga war am mu indi onze au lieu ñu may ko mu complété cinq yi ñu ni ko indi woon nombre bi war kon doo bokk élection ñii ñoom ñëw dépassé seen bopp ñu ni dépasé nañu ba pare ni ñoom dañuy bokk élection alors que kenn fàttewul en deux mille dix neuf yàggul bay fàtte di fi xaj ñetti at la rek que ni Malick Gakou conseil constitutionnel bi mu dépassé nombre de parrains yi nga xam ni moom la ñu waxoon conseil constitutionnel dafa génne donc décision ni ko yow mënoo bokk ci élection kon tey mënul nekk. Benno Bokk Yaakaar bokk kon Benno Bokk Yaakaar du bokk ci élection législative yi ñu jëm ci 31 juillet 2022 donc ñu indi recours boobu tout de suite déposé ko balaa ñu naan jot naak jotul parce que comme ñoom des fois délai yi suivant ni mu leen arrangé lañ koy interprété moo tax ñu ñëw déposé recours boobu di xamal nag président Macky lu simple lu simple mënoo ñëw ni nit dafa fauté en un ni que doo bokk yow nga fauté en cinquante quatre ni damay bokk mënoo wax ni nit dafa fauté ci benn circonscription électorale du bokk mën ma fauté ci cinquante quatre circonscription électorale ndax waroo am liste fenn ni damay bokk kon état bi na xam état wu ñëpp la état wu ñëpp la te déjà même lii nga xam ni tey jii moo xew ci liste Yewwi Askan Wi loi bi permettre na tey mu am ay substitution mais ñoom li leen dal loi bi da ci leer naññ da ci wax mu am également jurisprudence bi ñu tuddee jurisprudence Gakou mais na Sénégal yëpp mobiliser wu mobiliser wu pour que le président Macky Sall xam ni moomul Sénégal moomul réew mi ba tout temps muy def li ko arrangé tout temps muy jéem di fexe nu mu nasaxale dynamique bi opposition bi nekk parce que depuis que ñu taxawal le plan bi boole wàllu ak Yewwi communément appelé PDF boobu ba tey dafa nelawatul parce que on a fait une étude minutieuse qui montre que département yu bëri à l'intérieur comme à l'extérieur ñaari forces réunies yooyu dañ koy romb nekk ci kanamam et dañu contourner le raw gàddu bi nga xam ni tey da doon permettre même avec une voix mu jël tous les députés qui étaient prévus dans une zone. mais jàpp nga ni tey est-ce euh, li nga xam moom mooy euh, seen recours bi jàpp ngeen ni euh, ici mu war a am dina dina leen favorable. bu fekkee droit rek lañu wax lan ngeen fas yéene bu fekkee droit lañu wax droit képp. yoon bi boole Sénégal yëpp bu fekkee yoon boobu lanu tari sunu liste moom day jàll mais ñoom seen liste du jàll loolu mooy yoon bi nga xam ni moom la ñu jàngale ngeen jàng ko loolu la wax bu fekkee danu tari yoonu Macky Sall le droit de Macky Sall loolu dañuy indi fitna ci réew mi parce que droit wu Macky Sall mooy li mu bëgg ak li ko arrangé ci jamono loolu lay tari donc tey ji conseil constitutionnel war na normalement ci fan yi ñu jëm génne décision am te mënul génne leneen lu dul yéen moom da ngeen bokk ci biir Dakar mais président Macky Sall ci cinquante quatre circonscriptions yëpp quarante six départements à l'intérieur ak huit à l'étranger mënul bokk parce que bi muy déposé respecté wul li loi wax jëm ci parrainage. du Yewwi mooy def Sénégal mooy def ak adduna bi mooy def parce que bu boobaa suñu démocratie lay jóg di ko fragiliser bu boobaa sunu ay institution la jóg di ko fragiliser bu boobaa sunu processus électoral la jóg di ko fragiliser du affaire Yewwi rek bu boobaa seen affaire la suñu affaire la affaire adduna bi la mënul wax ni tey il est président de l'Union africaine naan mi ngi wër di jéem a régler ay conflits ailleurs di jóg di jéem a régler ay problèmes ailleurs alors que dans son propre pays du sax appliquer li droit di wax donc je pense que loolu sagalu ko sax moom ci boppam donc li wér mooy li yoon wax ñun danoo war a bokk mais moom warul bokk. loolu nag la ñu euh, a a def. am ay kàddu ñu yëkkati par rapport ak situation liste bi fii à Dakar ba sax euh, ñenn ci ñoom daal di lay comporté yow par rapport ak say propos yi nga teniroon euh, maanaam ci wàllu liste boobu tey fas yéene ngeen est-ce a arrondir les angles pour ñeneen ñi nga xamante ni moo nekkoon ñoo nekkoon les frustrés wala ñi nga xamante ni peut-être nañ ba seen yaakaar ci yeewu askan wi ngeen gën leen a regrouper. mooy ñu ñëpp ñoo bokk te yeewi askan bi dañ ci liggéey ay weeri weer ba def ko benn machine performante bi nga xam ni tey amul ku mën a jàkkaarloog ak moom ci biir Sénégal loolu mooy li wér ay ñu bare def ci seen coono def ci seen doole ba mu mel noonu mooy li wér am na ay divergence yu am mais ce qui est clair mooy dans les prochains jours da nga koy dépasser et je pense que ku nekk yaa ngi œuvrer jëm ci loolu li ci des nag jëm ci li amoon ci liste bi lu féete sama ginnaaw la ndaxte mënuñu nekk ci benn polémique bu inutile li am rek mooy man chaque fois bu ma leen di wax rek dëgg laay wax loolu la ma Sénégal yi xamee ca ca laay li ñu ñu li ñu jàpp démb depuis démb mooy. ban société civile moo ko wax. mooy ñan ci am am na mooy ñan ci la pour ma ci la am nañu jàpp ne am na naïveté ak déggoo ma ni la xam nga tey jii nii le problème nekkul ci juger parce que boo bëggee dugg ci jugement rek déjà yaa ngi génn ci verdict bàyyi nga droit yaa ngi yem ci loolu xam nga tey ngay defal tali bi nga def une erreur ci ni nga ko war defee ñu may la possibilité nga rectifier ko est-ce que da ngay des ci erreur bi wala da ngay des ci rectification bi nga xam ni moom nga war def pour avancer ñun nekkuñu ci loolu fi mu toll nii ci li ñu nekk mooy yoon may nañu loolu tey jii nii ñu mën ko corriger def ay substitution pour mën a bokk au niveau de Dakar donc ñun ci loolu la nekk bokk au niveau de Dakar parce que moo jaadu yoon may nañu ko li ma wax nii. dama ko wax ci wolof mu leer nañ dama ni article cent soixante-treize bu njëkk ba dafa waxoon ni kenn mënul génne kenn mënul tamit remplacer mais ci code électoral bu bees bi loolu dañ ko cee dindi lu ñu dindi nag mooy kenn tereetu ko aussi simple que ça donc bul ko terewul lu tax du nu may nit ñi ñu def ko loolu ci la yeewi askan wi nekk mais nag aussi même loi bi même code électoral bi moo wax ni ku joxe ci ba ngay déposé nombre de parrain yu ëpp bokkoo loolu aussi loi bee ko wax te loi boobu appliqué wu na en deux mille dix ci benn candidat muy Malick Gakou kon loi boobu dafa war appliqué wu tey ci ki nga xam ni mooy Benno Bokk Yaakaar gis nga nag jeu bi ni jéem def mais ils ont mal joué parce que après am na arrêté bu génnee ni wéy am na article six bu ci nekk bu réglé loolu daté du vingt sept avril. mais difficulté bi na am après mooy journal officiel parce que journal officiel lu ni fàng la bi nit ñi demee xooli article boobu kan lañ ko fa publier ñëpp gis nañu ni le mais mai lañ ko fa publier alors que ñoom ils ont déposé le 4 mai donc loolu mënul appliquer wu ci li nga xam ni ñoom déposé nañ ko ba pare ci ñeneen ni sax lay mën a appliquer bu fekkoon application dina am kon amuñu bunt bu nu mën a jaar ñoom ba bokk kon bennoo du bokk